weeru koor weeru alxuraan fan nga toll ci alxuraan di fi ba koor gi ñëwee ba léegi defi ba ñu commencé koor gi yàlla yàlla nangul ñu suñu koor mais poséwul sa laajal sa bopp question nit yàlla yi bu njëkk dañ ci daan gis ñoo xamante ni dañuy jooy di jooy ba des fois seen dëkkandoo yi day ñoo fekk leen fa naan leen lu xew xanaa da ngeen am dëj seen kër ñu ne lu gën a rey dëj da am lan ngeen am comme souci mu ne tey de mooy sama wird mooy li ma naan li ma waroon jàng mooy ci bés bi ni ma ko waroon respecté respecté wu ko mooy lan ci téere borom bi subhaanahu wa taala tey ñun sàggane nañ li téere bi te wallahi ci lii la mooy suñu wër nekk waaye ci lii la mooy suñu yërmande nekk wa nunazilu min alqurani ma huwa shifaun wa rahmatun lil muminin naam jullit dëgg dëgg dëgg ci borom subhaanahu wa taala way ngëm dundam bi yëpp macha allah day dund ak alquran kon nañuy jàng alquran bu ñu bokk ci ñooñu yonent bi sallallahu alayhi di wax ni borom santaala di ko wax ci alxuraan wa qaala rasulu ya rab inna qawmi ittaxadu hada alqurana mahjura yoneen sallam nee na yàlla ñu bari ci sama xeet mooy alxuraan bi dañ ko woon ginnaaw dañ ko dëddu dañ ko bàyyi kon bul bokk ci ñooñu dundal ak alxuraan nga dund ak sunnatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam